لو ملتي ميديا مولين دي ميسين اميسيون السلف مع القران بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مبكي توب السلف مع القرآن ñu dellu si waat ci suñu jotaay asalafu ma alquran muy mag ñi ak alquranul karim ñu koy amee ci kër gii di la maison du coran au sénégal ñu ciy ànd ak doomi daara yoo xam ne ñoom ñoo ñu gën a dooleel ci jotaay bi ba ñëpp di ko mën a jot muy loo multimédia nekk fële ca sàndaga di jaay lépp lu jëm ci électronique ku jokkoo ak ñoom ci numéro yi incha allahu taala Eh, da nga àgg ci bërëb ba te di nga kontaan tey ñu andi tomb bu ama am solo mu nekk beneen marxala muy jamcul qur'aan alkarimi fi ahdi abi bakrin eh, as-sadiq radiallahu anhu eh, dajaleb alquraanul karim ci jamono abi bakrin as-sadiq radiallahu anhu ñu ñëpp wax nañ ne te mu wér te woor ne alquran bi yonent bi di génne àdduna fekkut ñu dajale ko ci benn kaamil moo tax ñun fii comme que ñun ñëpp surgay alquran lañu dañuy waxtaanee biographie alquran muy kaamilu alquran gi fan la aw ba ñun tey jii ku ci nekk mën cee jot waaye dajale alquranu karim yëpp mu nekk ci benn kaamil gu rafet a rafet jamono abi bakrin sadiq bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam faatoo ba abu bakrin daal di koy wuutu lu baree baree ci xeet yi wala ci qabail yi ñoom danoo murtadoon maanaam fitna dafa dugg si ñu bare bare daal di génnaat ci lislaam bokk na ca la ca ëpp ca ya ko waraloon ay nit ñu jukk di woote woo ne ay yonente lanu waaye awee ci intérêt ñooña nga xamante ne ñu bare bari ay woy bees lanu ci lislaam daal di leen teggil ay mbir pour mën leen nax masalan am ci ñoo xamante ne dañoo ñëwoon ci ay eh, ñu dugg ci lislaam ñu ne leen teggil naa leen azaka ngir seenu tàppale xam nga koo xamante ne xam-xamam bareegul ci alquran xool gi taxagul mu yàgg ca boobaa nga teggil ko azaka dafay nangu am ñoo xamante ne ñu ñëw teggil ñenn ñi koor ñeen ñi teggi ay julli nangam ak nangam caaxaan gu nekk daal di cay juddoo ka ca gënoon a fas nag mu nekk mu musaylimatul kadab ñoom sa sajjaax ñoo ñëpp ah, aswad al ansi ñoo ñëpp eh, nekk ñoo xamante ne ñu bari woon lan lool bi loolu amee abu bakrin sadiq daa di yebal armée bu rëy rëy rëy rëy waaye daal di teg ca bopp ba ki nga xamante ne moom mooy sayfullah mu nekk ki nga xamante ne moom mooy xaalid ibnu walid mu daal di koy yebal mu dajale ñi nga xamante ñoom ñooy armée jullit ñi ne ko demal foofee ca yamaama ca foofee nga xamante ne kàccekat bu mag boobee di mu limatul kadab nga xam ne dafa doon fen ne moom ab yonent la waaye ñu dem nu jamono gën di doxee rek ngay gën a yéemu lool dem ba suñu réew mi dangay gis wax dëgg fi yàlla ay nit ñu lekk seeni ganaar ba suur daa di woote woon ay yonente lanu <coughs> bés bu nekk ñuy yéesal boobee kàcc di dem am ñoo xam ne jombul pitax lanu lekk ñenn ñi jombul dañuy gént waaw moo tax liy faj yii yëpp mooy xam-xam rek xam-xam kuy góorgóorlu di topp jotaayu xam-xam di ca góorgóorlu kéem ti lay kàttan mën nga mucc ci yu baree baree bari Xaalid ibn Walid daal di dem mm, ànd ak jullit ñi ñu daal di xeex ak ñoom ba gañe leen ñu baree bari ñu rey leen ca waaye ña ca des daal di tuub dellu si wat ci lislaam comme que Musaylima moom moo nekkoon yax bu mag bi moom moo taxoon ñu baree bari daal di am fit toppandoo ko ba ñu ko reyee rey ñu baree bari ca ña mu àndaloon ña ca dawoon daal di rëccoon daal di dellu si wat ci lislaam ñeneen ñëpp daal dawaat daal di daal di dugg si ci lislaam mais xeex boobu noonu nag am lu mu lu mu lu mu xewal lu mu waral mooy ñu baree bari ci saxaaba yi daal di ci daal di ciy faatu am na ci borom xam-xam yi ñu wax ne juróomi lu toll ak juróomi téeméer ci saxaaba faatu nañ ca am ñu wax ne juróom-benni téeméer ak juróom-benn fukk faatu nañ ca am ñu wax ne lu tollook juróom-ñaari téeméeri saxaaba faatu nañ ca muy tolloog eh, sabamia allahu akbar juróom-ñaari téeméeri saxaaba faatu nañ ci fitna moo tax moytu fitna mu nekk lu am solo rawatina fitna ju jëm ci wàllu pas-pas ak ci wàllu wàllu diine moo tax diine ji lépp lu ci waay di def rek na nekk loo xamante ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom moo ko jàngale nga jële ko ci alquran wala ci jàngale fi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax mag ñi ci loolee la nu nekkoon lu fi waaye daal di lekk ginaar wala yéeg ci oto yu bees yii tax nga dugg ci yenn mbir yi saa duggee ci bàmmeel di nga xam ne yàlla du sa morom waaw kon euh, lu lim bu toll noonu ci saxaaba yi faatu nañ ca waaye itam nag am lu ci am mooy ñi nga xam ne ñoom lañu ñu tuddee woon alqurra mooy ñi mokkaloon alquran doon ko jàngale Euh, di ko jàngal doomi saxaaba yi waaye di ko jàngal ñi nga xam ne ñoom ñooy door a dugg si ci lislaam lim bu takkoo takku daal di cay faatu laa ilaha illa allah bokk na ca rek ñu limal leen ki ñuy tuddee Salim Mawla Abi Xudayfa Salim Mawla Abi Xudayfa nekkoon euh, saxaaba bu màgg waaye mokkaloon alquranul karim lool ci mokkal bu wér bokk ci ñi nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam joxoñoon na leen bég ci ñoom lool ngir seenu alquranul karim bokku na ci ñinga xamantene fofé lañu faatu won ñu bari saxaaba yu magi yi Zayd ibnu Xataab Abi hudhayfa ñom ñep ci xare bobu lañu lañu ñu kon lu tollu juróom-ñaar fukk muy 70 70 ci ñinga xamne ñom ñoo karim nga xamne seen deñ yi magaséb alquran la won ci jamono jojé ci xare bi lanu lanu faatu bi nga xamantene xabar gi agsi na foofee ca madinatul munawwara omar ibnul khattab xabar gi daal di koy téé nelew mu gis ne ñinga xamne alquran bindaguñu ko dajale ko ci ben kamil ñako ko mokkal ñu bari bari faatu nañ ci te yeneen xeex yi ñëw ñu bari itam limbu ba takku mën na ci faatu mu daal di dem ci abou bakri ni sadiq radiyallahu anhuma mu ne ko yow mi nga xam ne yaa fi wuutu yonent bi salallahu alayhi wa sallam li ma gis de moom mooy nga dajale alquranul karim ci benn ci benn téere ci benn kaamil bi mu ko jëkkee wax abou bakri ni sadiq abou bakri ni sadiq daf ne ko nan lay defee loo xamante ni yonent bi salallahu alayhi wa sallam defu ko ndax abou bakri bëgg bëgguta def bidaa nan lay defé lo xamné ne yonent bi defu ko te Aboubacrine bëggut a def lo xamante ne day melni ni mo gëna xër yonent yàlla Muhammad ali sallatu wasalaam ci téré bi Omar ibnu khattab nak daal di jël am patience bu baax motax kuy woté ci l'islam do yakamti wa do yakamti do gaaw mer do gaaw décourager muy daal di itam lan di naxanté ak abou Aboubacrine Sadiq ba abou Aboubacrine Sadiq nee ne xatta sharaha allahu sadri ba yàlla daal di ubbi sama dënn def ci la nga xamante ne moom la Omar gis Aboubacrine daal di ci waxtaan ak saxaaba yu mag yi ñoom ñëpp ñu gis ne loolu de moom mooy li li gën bakr ibn sadiq daal dem ci ki nga xamantene mom moy zaid ibn thabit mu nek sahaaba mag bobé nga xamné wax nañ leen mom mo nekkon katibun nabi nga xamné amul won benen métier luddul tok ci wetu yent yàlla muhammad rek alquran su wacce mu daal ñëw bind ko mu daal ñëw ci mom mu nekk zaid ibn thabit dama bëgg dajale kamil alquran karim dama ko dajale ci bëgg dajale ci benn kamil te yow la bëgg nga jité bobé liggé sa loxo la ko bëgg tek zaid ibn thabit ne ko nan ngay défé lo xamantene yent bi sallallahu alayhi wa sallam defu waye Zayd nee abou Abu Bakrin dañul di di ma di ma di ma nax di ma maanaam di ci waxtaan ak man di ci waxtaan ak man di ñëw di ñewat di ci waxte yuraajiu ni mu ci wax ak man ba yàlla daal di ubbi sama dënn def ci la nga xamne mom la def ci dënnam ba Umar ibnul khattab waxe ak mo waxe ak mom waye ba li amé xolal Zayd ibn Thabit limu wax mu ne dafa giñ mu ne wallahi giñ na ci yàlla ne toxat suñ ma waxone na jël ab montagne toxal ko manam fer la naqlu jabal la naqlu jabalin ahwanu alayya mimma amarani bihi min jami al quran nee ne suñ ma digaloon fekkoon ab montagne bu rëy ne ma montagne mii naa ko jël toxal ko yóbbu ko ci yóbbu ko ci beneen place looloo gën a woyof ci man te mooy sas bi gën a woyof ci man ni ki digal bi ñu ma digal ne ma dajale alquran allahu akbar kon nga xam ne ñii dañoo xamoon responsabilité bi nekk ci al alquranul karim kon kiy jàngale alquranul karim responsabilité bi nga xam ne moom la Zayd ibnu Thabit yëgoon moom nga war a yëg ndax yow da ngay jël alquran toxal ko ci sa dënn def ko ci dënnu xale da ngay jël alquran toxal ko ci sa dënn def ko ci dënnu jaam yi kon est-ce que waxtu wu nekk yaa ngi xalaat ndax yaa ngi yaa ngi toxal ca ñoom alquran ja nga xam ne moo jóge woon ca yàlla aw ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ndax yaa ngi leen di jox alquran ju wér ndax yaa ngi koy firri na mu waree ndax yaa ngi koy sellal ndax yaa ngi koy jox gëddam subhanallah moo tax Zayd ibnu Thabit waxoon ne toxal li nga xamante ne moom mooy montagne moo gën a yomb ci man niki ni nga xamante ne moom mooy toxal li nga xamante ne moom mooy alquranul karim te ni sadiq dafa wax zayd mu ne ko innaka rajulun shabun aqilun la nattahimuk wa qad kunta taktubu alwahya li rasulillahi sallallahu alayhi wasallam fatatabbi alquran fajma'hu li dinañ ko beral jotay bopam ci jotay bi di ñëw mu ne ko yow de góor nga nit ka ko xamante ne ndaw nga am nga xel duñ la la nattahimuka fi din manam nekkoo ko xamante ne duut nañ ko baramu tuuma ci dinem manam do ab kàccoor do ko xam dañuy sik sak ci pas-pasam te yow bokk nga ci ñinga xamne dañ doon bindal yonte yàlla muhammad ali sallallahu alaihi wasallam wahyu manam alquran tu waccan kon yow topal alquran nga xol nan nga koy dajale zaid ibn thabit bi nga xamante abubakar wax na ko li ci la wa waace waatee ne mu law kallafuni naqla jabal min aljibal ma kana athqala alayya mimma amarani bihi min jami alquran suñ ma digaloon ne ma toxal montagne loolu du gën a diis ci man mukk ni ki itam li nga xamante ne moom lañ wax ne ma euh, toxa ma daj dajale alquran nee na dajale alquran gi moo gën a jafe ci man mukk fuuf ni ki jël montagne daal di koy jaar di koy jël euh, pour euh, toxal ko moo tax Zayd nee ne ma daal di alquran di dajale minal usub waxoon nañ leen ko mu nekk li nga xamante ne moom mooy jaridu naxl bànkaasu tàndarma yooyee wala li xaaf waaye diw ñi nga xam ne ñoom ñoo ci ay xeer ba xatta wajattu nee ne may topp alquran noonu di ko dajale dajale xatta wajattu ba ma daal di lan axira ayatin maanaam axira aya min surata tawba muy aaya bi mujj ca surata tawba maa ngi ko fekk ci waa ji ñu tuddee abu xudayma abu xudaymat al ansari moom rek laa mu yor aya bi lam ajidha ma ahadin gayr ghayri manam fekuma kenen am le laya muy laye ban laqad jaakum rasulun min anfusikum fi yàlla di waxeen laqad jaakum dikal na len rasulun ab yonent min anfusikum bu joge ci yen nit ni yen arab ni yen azizun alayhi ma anittum way li nga xamanteni moy choona yi ngeen di dajak nattu yi len di dal dis na lol ci mom reyna mom ci lool ci mom way harisun alaykum bil mu'minu rahim ba aya ba daanu nee ne de mom la mujjé am te maa ngi ko fekk kenn rek yor ko muy abu xuzayma al ansaari ma daal di koy jël daal di koy dolli ci kaamil gi pour li nga xamante ne kaamil gi daal di daal di daal di daal di mën a mat waaw kaamil googee bi ko Zayd daal di dajale ba mu mat mu daal di koy jox Abubakar Abubakar daal di koy téye ci dundam bi mu faata mu jox ko Omar bi Omar di faatu daal di koy jox ki nga xamante ne moom mooy Xafsa ba keroog ñuy àgg am na beneen marxale boo xam ne mooy marxale Ousmane ibnu Affan saa yu ñu paree ci ñii kon lii moom moo nekkoon jotaayu introduction bi nga xam ne moom la ñuy def lan moo taxoon alquranul karim ñu daal di koy dajale ci jamono Abi Bakrin Sadiq ak ban qissa qissa bii ma nettali imam Buxaari moom moo ko nettali ci téeréem Zayd ibnu ci làmmeñu ki nga xam ne moom mooy Zayd ibnu Thabit كن ما كان من صواب فمن الرحمن وما كان من خطأ فمن نحسان صلى الإله على النبي وآله ما لبى ملب أو تهلل محرم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Multimédia est spécialisée dans la vente et la prestation de services en proposant une large gamme de matériels informatiques, bureautiques, électroniques, réseaux, divers accessoires et services liés aux TIC, technologies de l'information et de la communication. Avec 11 ans d'expérience, la société Low Multimédia est composée d'une vingtaine d'employés et participe au développement du pays et à la création d'emplois l'eau multimédia. Nous sommes au 27 avenue Émile Badian, angle Paul Hall Dakar, Sandaga, Lalouourous. Téléphone 823 81 87 ou 77 998 04 04. Service commercial 77 306 44 83 ou 76 637 45 45. L'eau multimédia moi de émission à Qur'an